ñoo ngi nuyu mbokki Kalsane famille bépp foofu nit mën a jóge rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay ñaanal jàmm di ñaan kenn ku ci nekk tànk ñëwee ak yi ngeen delloo yàlla nag yàlla def tànk tuyaaba daje bi ñu fi daje tamit ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla nañ ko daje ay ati at yu bëree bëri te ànd ak yëpp te yàlla doon na xéewati yàlla yokk man gi yokk wér gi di ñaanal ñi nga xam ni nag ne daaw ñoo ngi bokkoon nekk ñoom te yàlla dogaloo leen ñu fekke ko ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla yàlla xaar leen àjjana di masawu coono yi ñi nga xam ni fi ci nekk rek fa fa fu waay jóge rek ñu ngi lay masawu coono bu baax a baax di leen sant bu yi di sant ñi nga xamante ne ñoo taxawee liggéey bi muy organisateurs yi muy ku mel ni Ndiaga ak sëñ Saliou Ndiaye gi ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen masawu coono yi te xam ne coono yi coono yi bànneex la. coono yoo xam ni suñ borom ëllëg da leen di fay kenn ku nekk am naa yaakaar ni kaw fay kawe sa njort yàlla na yàlla defal leen ko ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm baax di sant so mbooleem xale yi nga xamante ne ñoo taxawee liggéey bi ñoo ngi leen di sant bu baax seen taxawaay bu baax a baax a baax di sant it soxna yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñi nga xamante ne ñooy di liggéey ñu nekk seen ginnaaw jamono bu nekk ah noppaluñ ñoom itam gudd noppaluñ bëccëg di def seen alal di ci def seen kaddu ñoo ngi leen sant gërëm di ñaanal yàlla ñoom itam yàlla yàlla barkeel seen i liggéey njaboot yi ñu am it yàlla na yàlla barkeel di ñaanal njaboot yi yàlla yàlla may leen wér may leen wërsëg may leen xol bu ñu mën taxawoo wayjur yi wayjur yi ñaan leen yàlla dimbali ñu bàyyi gunge njaboot yi ba ca kanam ci yàlla may leen wér di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu di nuyu nag ki nga xamante ne mooy imaam ci lañ war a jëkkee wax dëgg yàlla suñu kàddu noonu ciy jéggulu moom lañ war a jëkk nuyu di sant di nuyu yëpp sëñ Modou Lo mi nga xamante mooy borom dëkk bi ñoo ngi koy baax baax baax di nuyu yëpp sëñ Adama Ndiaye mi nga xamante ne moo nekk Kaasaar ñoo ngi seen ginnaaw bu soobee yàlla ak borom Tuubaa ñu ngi seen ginnaaw bu baax a baax a baax di ñaan yàlla li ñu ci yéene ci liggéey bi daal yàlla yàlla defal ci kaw suñu jot ñoo ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp ah li ci des ñu bàyyi si sëñ Saliou Ndiaye bi nga xam. waaw jërëjëf Baye am dégg kàddu yi am na solo mi noo wax ci turu cellule Vincent Saloum wax ci seen kàddu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rahmatulah wa barakaatu mbokk ñu ngi di ku nekk ci turam santam di tuub bu baax tey jéggul suñu kilifa ñu jox kàddu rek ngir ñu jot li Serigne Sagata muy Moustapha Ndiaye Jëmin ak Khadim Ndiaye dogal suñu président ko di ko liggéey liggéey bu mucc ay jotam. lépp da koo jël def ko ngir Kalsane Family bu dégg bëccëg noppalu saa su ne kon tey fii ma taxaw moo fi waroon a taxaw ngir yokk li bu ñu ko féetale ngir ñu ngi waxe foofu ngir ñu jagleel bis bi mbooloo mi ci nga jël kàddu kooku jox ngir ñu jottali ko ñu ne naa ko jot ngir kàddu kàddu yi nag day gàtt rek. kon ñu ngi sant yàlla suñu borom moom nu boole ci kalasan Njaay suñu borom dina dimbali lii suñuy mag suñuy bàyyi ko yoroon doon ci doxal bàyyi jëmmi jamono mu taxaw ko ne jëlaat rek lépp di ko doxal nga ci liggéey bi mu ci ay bopp bi nga xam ba kalasan gépp bu dee ñu ñëpp ñi bokk kalasan bi ñëpp xam nañu kon mu nekk liggéey boo xam ne ah am na solo lool waaye ci coobare suñu bi nga xam ne tey mooy Baye Saliou Ndiaye ak suñu booy ji bu baax nga xam tey ñu ngi koy fàttali ñu ko ñaanal waaye mu joxe Ndiaye moom lañ ko àndaloon ak njagaar yu bëri fépp foo xam tey rek Kalasaan famille boo ko mën a fa xeetu nañ fa dem fa dox ba indi ba nga xam ne moom Kalasaan la bokk kon liggéey boobu kat am ngeen ci amal na leen ci dugal ñoom leen ci ñaanal te am ngeen fay boo xam ne suñu borom leen koy fay ndax taag bi nga jëkk rek ñëpp dox mu bokk li feeñoon bokk la ci suñu borom digal ci biir ñu ngi ñaan yàlla bu ngeen ci yàlla yem ci mbooloo mbooloo ak ñoom ñëpp kon nag bu yàlla bëggee loola ñu bokk ni kala ñu xam ne kala sax nañ bokk di fi ñëw di fi teew ñu ngi sant suñu borom ci teew bi fi teew ndax suñu borom a dogal ren ñu teew bi daaw am na ñoo xam tey nekk noonu nañ fi te suñu borom dogal lu door ci ñoom kon ñoo ngi ñaan suñu borom ñooñu doole leen yërmaande jéggal ku mel ni Serigne Ngaye Ndiaye Ngaye Ndiaye suñu mag ci la bokk ak ñeneen ñi ko mën kon ñoom ñëpp yàlla suñu ba léegi maanaam ñëpp def taxaare laaj bi ñi fi des suñu borom dana ci ñoom euh, tawfiq ak jàppandal ba li ñu yéene woon liggéey ñu mën ko àggale kon nag Cheikh Moussa Ba jotaay bi xam na comme dañoo tënk ci kàddu sunu wax du mën a gudd kon ñu ngi sant ñëpp di ñëpp di delloo ñaanal rek amuñu lu dul bis bii ñu koy bàyyi xel ndax Kalsam famille li ngeen ci liggéey fukki ñaar. moo gën a metti benn bis bi fii weer bu ne ngeen dem kër genn kër di ko def tuur yow boo dee def aller retour mën naa dépassé na mille franc wala deux mille franc di fa def kon nag suñu liggéeyee ba benn bis bii rek ci benn at mi vraiment war nañ koo mën a a benn taxawaay boo xam day day am solo loolu loolu nag moom sama bopp laa ci jiital ci boole ñëpp képp koo xam ne Kalassane famille nga bokk bis bii mu am feneen boo mën a demee ñoom bis ban am lan ca man lan ca xam ñoo ngi ko cay def kon nag buñ buñ tuutalee suñu bis bii nanu xam suñu bopp lan tuutoon suñ ko yëkkatee suñu bopp lan yëkkate wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa wax ci suñu sëriñ waa Sakana sëñ Mbaye Ndiaye Sakana bi la sëñ Sakal waxtu waa Sakal ak waa Ngik e a né? teg si loxo Baye Modou Looto di borom dëkk bi ak imam Mbaye Diop ñu ngi leen di sargal bu baax di leen wax ni ñii daal kontaan nañ si lool xëy na amuñ si sax kàddu ndax ñun bu fekkee ni kilifa yi wax na rek amuñ sax kàddu ndax Baye Saliou Ndiaye vraiment li ñu fiy wax.

moo doon wax ci kàddu selu sàkkal def ci jaxee bismillah imam ba jël wax jullit yi di siyaare di leen bala ak di ci kàddu borom dëkk bi muy Serigne Mouhamadou Ndiaye nee na mu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw moom ko xam képp koo xam ne ci yéen a bis bi nga ñëw fi nee na mu ngi lay nuyu di di la siyaare ah, di di la bala ak di di la bala nee na mu ngi leen di dalal jàmm nee na mu ngi leen di nuyu bu ku fi ñëw mel na ne moom nga fi ñëwal moom mooy borom dëkk bi yal na yàlla yàggal ko bu yàggal taxawaayam fekk ko fi moom mu yàgg toog fii di leen teeru yàlla yàlla def ko muy atam yu bare bare bare bare lépp ñu fi jaamu yàlla yàlla def ko yàlla mu ngi siyaare ñëpp mu ngi balu ak ñëpp mu ngi baal ak ñëpp mu ngi jégalu ñëpp am kontaante lool nag ci ñëw gi ngeen ñëw fekk si ko ci dëkk bi lu bokk dëkk bi ñun ñëpp nuyu nitu kala nee na mu ngi leen di nuyu ci loolu mu ngi leen di masawu ci coono yooyu dagg say soxla dagg say yitte ak dana mu jafe nga bàyyi ko lépp ñëw ngir yàlla ak bëgg lu baax ak dundalu bokk yàlla yàlla fay la ci yiw woowu bokk bu ngeen di dundal ko taxawaay bi yàlla yàgg yéen yàgg lu koy fekk nu àndandoo di ko liggéey lépp lépp luñ alxuraan bi ñu fi jàng dëkk bi dëkk bu alxuraan bu bi jàng ci mboolem jullit yi ak jullit mën a nekk ci biir suuf ba ba buf tey alquran yi ñi fi jang yalla yalla yàlla jéggal ñu ci lool jéggal ci bépp julit at ñu ci yërmandeem gannaaw solo bakkan yalla yalla yàlla faj sunuy aaje faj seeni aajo faj aajo yi jullit fu waay mën a nekk yalla yalla yàlla faj sa aajo yalla na yàlla yàggal bi yalla yalla may lu wër yalla yalla gën no déggale gën no dëppale suñu xol nu àndandoo bok lu ñuy liggéey moy lu baax kenn ku nekk mooy li la war nga nekk ci bu ko defee lépp day rafet fa allah dara ñaaw yàlla ko dara ñaaw mu dalal gan yi bismillah waaye suñu responsable ñu nekk fi nga xamante ne moo di waa Kalasaan njaboot gi fi nekk yépp ñi ngi leen di nuyu di leen di leen balaax bu baax di leen balaax di ñaan nañu yalla bo le baal yi ngi alhamdullilah rabbil alamin di leen dalal yeen ñepp fi ci Kalasaan jaay di dekkou mam Nasru Kumba Faal mam malik ak mam galay Njaay ñi ngi leen di dalal ci dekk bi bu baax ci turu borom dekk bi di Serigne Modou Lota Ndiaye moom Mbaye Khary Nguer moom Khary Nguer Ndiaye moom Mandiaye Bakar maam Kumba moom Madoune Mané Sall Nasru Kumba Fall Mandiaye Bakar Bakar Arlouane ñu ngi leen di dalal ci dëkk bi ci aw turam ak ci turu imam Mbaye Diop moom Alaaji Serigne Diop Asta Sey Ndiaye Bakar Ramata Modou Fatma Bintaloo Modou Mané Sall Nasru Kumba Fall ma Ndiaye Bakar Bakar Arlouane booba ngay dem ca Ndiaye Ndiaye ngi leen di wax bismillah kenn ku ci nekk coono bi nga am ci jëf ci ci wax ci ñi ngi la ci sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala yàlla na yàlla yokk la te nga fekke ay déwéni déwéni déwén ñu daje ko fi ci Kalasaan Njaay ci jàmm ak salaam yokkuteg njaboot yokkuteg am-am yokkuteg wér xéewal jàmm ci biir kër yi yalla am nako man nako yalla yàlla nañ ko buur bi tabarak wa taala defal ñi ngi sant nak ñëppit ci turu coordinateur muy Njaga Njaay le coordinateur national ñi ngi leen di sant ci aw turam di leen wax tamit dal leen ak jàmm ci biir coordination boobu nag am na ay cellule Louga Serigne Abdoulaye Ndiaye moo ko jiite teew nañu yal na yàlla fay leen waa Sàkkal teew nañu ñi ngi ànd ak Serigne Mbaye Ndiaye moo jiite coordination ba foofa waaye tamit alhamdulilah rabbil alamin waa Touba soxna maam Fatou Gadiaga moo leen jiite ah alhamdulilah rabbil alamin Andoulaye Bal moo leen jiite waaye tamit euh, Sagata sëriñ Moustapha Jamil moo leen jiite moom i tamit ñoom ñépp ci seeni tur ak seeni sant ñi ngi leen di dalal fii ja Kalasaan Saloum Serigne Adama Ndiaye moo fa jiite macha allah ñoom it seen présence ak si nañu ànd ak imam Modou Fama ñoom itam ñu ngi leen di dalal ci seen i ak seen i sant alhamdulilah rabbi alamin wa Thiès ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ngi leen di dalal ñoom it bu baax baax waaye ñi ngi dalal tam Njaay ak si nañu fi ñu ngi leen di sant bu baax ci ndigalal ci imam bi ñu ànd ko teew fi ci ndigalal alaji talal kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen dalal fii ci Kalasaan Njaay di leen wax rek ni alhamdulilah rabbil alamin yalla daal nu baaxé ñu di fi dajé at mu nekk ci waxtu wi ak ci jamono bi waaye yalla bur bi tabaraka wa taala day dogale ci doomu aadamaam yi ci num ko neexee ak waxtu wu ko neexee te du ci laaj kenn te tamit macha allah du ci tàggu kenn daaw ci waxtu wi xatmu bi nga xam ni moom la ñu tëje alquranu karim góor bu baax gi ci sama ginnaaw di alhaji Moodu Jaxeer Njaay moom ki nga xam ni moo ko jàngoon daaw ren ji ñun yàlla buur bi tabaraka wa taala ngi ñu may ñu toog di wax moom ma nga ca armeel ya ñu dugal ko ci biir suuf jël suuf jalaat ca kaw kon moom it ñoo ngi koy ñaanal jéggalal borom bi tabaraka wa waaye tamit am na yeneen bokk yoo xam ni ma lim ci ñenn rek ñoo xamante ni bii it ànd nañoo ak ñoom ca dernier voyage ba El Hadji Ngagne Ndiaye ak ñenn ci ay soxnaam soxna Bintu Barke soxna Mané Lo yal na yàlla eh. te xaare leen aljana bokk ci alhamdulilah Serigne Modou Ndiaye ca Mbajaar bokk na ci El Hadji Mor Ndiaye ca Busura ñooñu ñëpp yàlla buur bi tabaraka wa taala jële na ci it ñenn ci ay ndaw Mouhamed Ndiaye fii ci Kalasaan Ndiaye fii ci euh, Mouhamed Ndiaye fii ci Kalasaan Ndiaye Mouhamed lay ca Thiès di doomi aale lañ ñooñu tam bokk nañ ci ay ndaw ma ñim ñooñu rek ñu yóbbaale ñi ci des ñëpp di ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala yàlla na yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana ci darajay Mouhamed alayhi salaatu wasalaam alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mooy dogal ci ak njabootam muy doomu aadama yi mu wàcce ci kaw suuf nu mu leen di boolee ci bokkuk deret ci bokkuk diine ci bokkuk dëkkoo alhamdulilah ñun ñi fi daje nag yàlla boole na ñenn nag ci bokkuk dëkkandoo waaye li gën a yaatu daf ñoo boole ci wàllu deret tey su ma jëloon jógoon di dox bari na ñoo xam ni fii mënumaa xam seen tur wala ma xam seen sant lu dul dama leen koo laaj waaye tey jii tey su ma jàkkaarloog seen jëmm damay xam ni ñii doomi Kalasaan Njaay lañu kon yaakaar naa loolu mooy li gën a am solo kon seen jëmm yooyu nga xam ni moom la ñu déplacé waaye tamit yóbbaale ci ñi nga xam ni mënuñoo ñëw yàlla na yàlla def barke ci ñoom ci darajay Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi ngi sant bu baax a baax a baax seeni taxawaay fii ci Kalasaan Njaay di leen dalal bu baax a baax a baax eh, li nga xamante ni bii mooy seen kéemtalaay kattan def ngeen ko ci maanaam daje bi réussir ci wàllu joxe ak ci wàllu wax ak ci wàllu jëf waaye tamit ci biir loolu maa ngi sant ndaw ñi nga xamante ni bii alhamdulilah rabbil alamin jël nañu seen temps yépp ak seen am-am pour que daje bi réussir. ñu and ci ñoom ñëpp ci liggéey bi ci rafetal gi pour que ñun ñëpp ñu mën a daje fii ci dëkk bi dox doxin bi nga xamante ni bii mooy boole ak mbokk loolu yàllaa ngi ñu ciy dimbali boobu ba léegi bu ñu 1986 wala ñu wax 1987 ñu bëree bëree bëri ci ñi nekk fii tey wuñu woon kon tey bu ñoom ñooñu yàlla dimbali ñu ba ñu juddu ba fekk ñu fi ba amuñ njaboot ñu andal ak ñoom ci dajé bi kon lu ñu wara wax moy alhamdullilah rabbil alamin sant yalla bu baaxa baaxa baax mu melni ndaw lañ yo xamni ñu bëgg jëm ci kanam lañ ñu bëgg mbotay gi jëm ci kanam lañ loolu nak ñu ngi leen koy santé bu baax di leen gërëm di leen wax rek ni jërëgeen jëf képp ko xamante ni kii ni daal teg nga fi sa tànk ak mi nga xam ne jotuñoo ñëw amoon ay yéene ñépp yal na yàlla boole leen ci genn gaal gi muy gaalu yiw ak fay taraanga gu yaatoo yaatu ci darajay muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñi leen wax bismillahi rahmaani rahim ngeen agsi alxam ñu àggale lépp ak alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant bu baax tam ñi nga xam ne ñoo yor sonorisation bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen taxawaay rafet na waye tamit di sante télévision Louga ñom itam ñi ngi fi ñi ngi leen di sante bu baax di leen gërëm bi rafetlu seenu taxaway bu baax ak seenu liggéey yàlla na yàlla jàppale leen ñi ngi sante bu baax Mbadiar TV nga xam ni ni Serigne mbay Ndiaye moo ko jiite moom itam mi ngi fi di def liggéey bu rafet bu am solo yàlla na yàlla fay ko ak ñi nga xamante ni bii ni ñëpp dañuy jàpp ci wàllu bi nga xamante ni ni mooy Euh, communication bi yàlla am na fay yàlla na yàlla fay leen kontaan nañ bu baax a baax a baax sant nañ bu baax a baax a baax alhamdulilah bisimilah rahmaan rahim tuddee ko ay nit yoo xam ni ñi ngi woon fële ca sagata ak ca mbooroo di liggéey liggéey bu rafet toogal fa njabootu kalasaan famille yépp ba ñu ràññee leen ci ràññeen boo xamante ni bii nii bu jéggi dayoo kon alhamdulilah rabbil alamin ñi ñu tuddee daje bi ñoom lañ nga xam ne ñoom lañ ko paree laa bëgg a que bu ñu demee ba ca kanam ba ca biir waxtaan ñu xam ni lañ ko paree mooy sëñ Mbaye Batoor Ndiaye sëñ Mbaye Munassiru Anta Gueye Bakar Ramata Madou Fatma Binteloo Madou Mané Sall Nassirou Koumba Fall Mandiaye Bakar kooku moo ci jiit alhamdulilah rabbil alamin uh, ki ci topp mooy El Hadji Ndiaye El Hadji Kebe mu ale fa jëmbu Ndiaye mu fa jëmbu Ndiaye mu galaay cëfur mu Ibra Seneba mu Malick Ndiaye ah fooruma ci histoire nag waaye Pape Diakhaté bu ma juumee bu ñëwee président conseil euh, commission culturelle dana ma jubanti waaye El Hadj Fatick Kébé moom it boo ko ñaanee ci aale fa jëmbu jaar ko ci fa jëmbu Ndiaye ci Asta Ndiaye moom Madoune Mané Sall Nassirou Koumba Fall ma Ndiaye Bakar Bakar Adouane kon yaakaar naa ni mooy ñaareel bi. di fa Jëm keneen ki ci des ñu tuddé ko Serigne mustapha ndjay nek ci Mboro di way jur Serigne Khadim ndjay mi fi nekkon legi ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yalla di wax rek ni na ak tamit Serigne tamfal ma sha allah mo ni fi participation ba am solo ñi ngi koy sant di ko gërëm Serigne mustapha ndjay mom Nasru Anta moom ramadan Ramata Madou Fatma Binta Lo bafal Maane Nasru Kumba fal ma Bakar alhamdulillah rabbil alamin kooku mooy sëñ Moustapha Ndiaye nekkoon ca Mboro ak njabootam fii daan jàngale alquran daan yëngu ci diine lu bare bare keneen allah Cheikh Fatifal moom tamit alhamdulillah rabbil alamin ñu ko daan wax Cheikh Batoor moom koy ci Nasru Euh, euh, Bakar Ramata Madou Fatma Bintaloo Madou Mané Sall Nasr Kumba Fall ma Ndiaye ki ci topp it alhamdulilah alamin mooy Serigne Moustapha Dieng Serigne Moustapha Dieng moom itamit nekkoon foofu ca Sagata Serigne Moustapha Dieng nag doon kóllëre rek Bakar Ramata macha allah ak njabootam Serigne Moustapha Dieng. ak mbay jëng boor jëng dagay jëng ñoo bokk Fatou Diop seen way jur di Maysa Fatma Jëng Maysa Fatma Jëng moomu nag seen way jur woowu moo nekkoon kolle rek Bakar Ramata mi nga xamante ni bii moo nekkoon fii ci Kalasaan Njaay di doomu Modou Fatma Bintaloo Modou Maane Sall Nasru Kuba Fall keneen ki ci desit alhamdulilah rabbil alamin mooy Mbay Géy macha allah uh, Marème Fall moom itamit alhamdulilah rabbil alamin nekkoon nag nijaayam yooyu ca Kalasaan ca ca Sagata ànd ak ñoom daan taxawu Kalasaan Njaay bu baax a baax a baax dox doxin bu rafet macha allah ànd ak njaboot gi yëpp kon ñii ñooy ñi nga xamante ni bi ñoom lañu paree ne bis bi incha taala waa Sagata buñ daañu ci indi gën a indi ay leeral muy li nga xamante ni bii ni mbokk lañu yoo xamante ni bii ni dañoo immigré fii ci Kalasaan Njaay dem ca Sagata nekk fa ay opérateur économique waaye tamit nekk fa ay nitu diine yaakaar naa ni ku nekkoon Sagata te xam sëñ bay bëtoon yaakaar naa njabootu sëriñ Tuubaa gépp jaar nañu foofu ci kër googu ñu ngi koy ñaanal yàlla moom ñi nga xamante ni bii ñëpp ñoom la ñu ne yàlla tabaraka wa taala tàmbal leen ci aljana yu gën a kawe yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko pour yàlla defal kon alhamdulilah rabbil alamin ci biir loolu nag am na nag ñoo xamante ni bii ni ñoom la ñu tuddee ndaje bi ndaje moomu nag tey jii ñi ngi ko jëmale ci njabootu maam Malick Ndiaye maam mooy ki nga xamante ni bi moo nekkoon rakk ci Nasru Kumba Faal fi nekkoon fii ci Kalasaan Ndiaye akum njabootam maam Malick TV di télévision boo xam ne mu yë télévision YouTube la ànd leen ak moom ngeen abonné ko